nagi kem tan ya badina jangu ko manggiu asurun cahal fuya Qur'an ngi kem tan ya badina jangu ko manggiu asurun cahar fuya ya nenne la bas bu kani waktu terebi seen kër ya kaawe na yonen nee na laa bu mujj ba gaañi waddu téere bi seen kër ya kaawe na Qur'aana gi xam fu ñuy jaar ba dund tiis bi ba yàlla subhanahu wa génne ñu ci ci jàmm ñu dellusiwaat ak yéen ci sunu ñaareelu daje suñu saar bu màgg bii di suuratu yuusuf alayhi nga xam ne boroom xam-xam yi dañu naan amul kenn koo xam ne dana nekk ci tiis fàttaliku fa yàlla jaarale yanquuba alayhi salaam jaarale fa yuusuf alayhi salaam lu dul lool yi dana doon lu ko dalal ñu jotoon ci jël suñu bind bu jëkk war a ñëw ak tey ci suñu bindu ñaareel di ànd ak ba tey seen doomu ndey Cheikh Ousmane Niang mi nga xam ni moo leen di toppal téere yàlla bi ci am njàngin niñ leen ko doon waxe daa iman ca jàkka ja ak di ko waxe fii mooy nañu xam ni dañoo war a déglu bu baax njàngin bi njëre ëllëgi gis si biir ñu nit bu ñu koy jàng man ko jàng-jàngin bu rafet gannaaw ba nag doog a déglu piri mi ngiree ñu mën a xam nan lañuy ñuy jaamoo yàlla ala basira ci lay yu leer yàlla na yàlla boole ñu ko jagleel kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا لهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرًا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بارك الله فيكم فيك بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبر مني فلما ذهبوا به بني دمي يب يوسف واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب نيوم نيب ني ديبو تي ديفكو تفا فردو تي تنبا اي لندمي تنبا واوحينا اليه نون لا وحيو جيمي تي يوسف لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون بسدنا مسا nga leen di xabaare di leen nettali jëf ju ñaaw ji ñu la def te ba boobaa du ñu mën a yëg di xam ne ndékkate yow yaay yuusufa mañ ko defoon wa wa jaau abaahum ishaan yabkuun suñu boroom nee na noonu lañ dikkale seen baay ca ngoon ga nekk nag di jooy qaalu ya abaana ñu neen ay suñu baay إنا ذهبنا نستبق نون داني ديمون دون كورس كي سوني بير وتركنا يوسف عند متائنا نباي يوسف كي سون باجاج غير مو غارديل نيوكو فاكله الذئب نون رك لي تيل غني لك وما انت بمؤمن لنا يو نقم نان دو نيك دي ادي غم نيل ولو كنا صادقين دون تاني نيكون نان دي ادي دغو وجاءوا على قميصه بدم كذب نون لني ديكي تا مبوم يوسف يوسف با تي ديرت جو خامني ديري فن لا قال بل سولت لكم انفسكم امرا يرنت الله يعقوب ني ديدت لي ام كاي موي تارالال نا نيلين سين بكان بي نمير فصبر جميل واي دي نين ما فك مون مون غو رافيت والله المستعان على ما تصفون te yàlla it moom lañuy ñuy dimbindikoo ci li nga xam ne yéen nga koy melal mbokk bi ñu mujjee daje ak yéen gisoon nañu ñu ngi teqali ko ci benn wax benn discussion bu doxoon diggante yonent yàlla Yaquuba ak doomam yi doom yi na ko bàyyi ñu ñu yóbbu Yuusuf Yaquuba teg ci ñoom ay lay waaye ñu insisté ba amul pexe mu bàyyi leen ñu dem bi ñu demee ñu dëppoo ñoom ñépp ni nañ ko sànni ci teen bi waxoon naa la jubb mooy teen boo xam ne amul pied amul miir bu ñu wërale ca kaw ak i pied loolee nañ ko sànni foofu ñu dëppoo ci te it la chaque ni du ñoom fukk ñépp ñuy ñëw yenu koo dugal kenn rek mën na koo dugal waaye maadaama ñoom ñoo ca d'accord bépp mbir bu doomu aadama fekke wala mu d'accord ca mbir moomii da ngay gis moo kaka def ñoo bokk yem looloo tax suñu borom ba mu ñuy nettali yonent yàlla saalix giléemam ga mu indoon mu ne izin baasa ashqaaha ka gënoon a bon ca dëkk ba moo jóg rey ko waye suñu borom mu ne fa damdama alayhim rabbuhum bi zanbihim fa sawaha yàlla daal indi mbogolam tek len ko yemel ko ci seen bir ndax ñi pote d'accord muy bind bo xamne ku ne ci ñun war ko yóbbaale di gërëm lu yàlla gërëm di bañ lu yàlla bañ waye bi ñuy sànni yusuf ci ten bi mu nekk mbir mu tiss lool ci xale bo xamne ñi nan à peine ay 12 ans la am suñu boroom xamal yonent yàlla yuusuf ne ko bul tiisu bul tiisu bis dana mës a ñëw nga taxaw ak ñoom di leen fàttali jëf ju bon jii ñu la def te bu boobaa ñoom duñu xam ne yow yaay yuusuf alayhi salaam loolu mbokk mooy ci dalal gi yàlla di dalal ay yonentam muy wañit ne yow doo yonent waaye tiis bu mën a dal sa kaw ngal la waay na toog muñ muñ gu rafet bis ngi ñëw ci bis bi nga nekk di nga ko looloo tax li sunu maam di nettili naan korona biris bi yàlla nañ dund ba koy fàttaliku di ree mi ngi wax yàlla nañu dund ba koy fàttaliku di sant yàlla ci xéewal yi nga xam ne def na ko ci teggi ko ah léegi bàyyi nañ ko ci teen ba fukki doomu bàyyi àndandoo bi ñuy ba jub kër gi rekk ku nekk commencé jooy te it mbokk na ci màndarga naafiq mbokk naafiq day moom ay bëtam fu ko neexee jooy fu ko neexee rek ñu commencé jooy dugg ci biir kër gi ñëw ne ay suñu baay ñun de yuusufa ma yóbbu woon dañ koo tekki suñuy bagage daa di daw di course avant ñuy dem fa ñu jëm bay dellu si fekk nañ tëll ga lekk na donte ne loolu it mbokk alxuraan mi ngi ñuy jàngal ni la nga xamee ni nii moom mooy sport loolee it islaam bëgg na ko rasul sallallahu alayhi wasallam nee na jullit bi dëgër moo gënal yàlla jullit bu lompañ donte ne dëgër lay ga ma ngay commencé ca ngëm nga ak dogu ga waaye bokk na ci it jullit nga fexe ba sa yaram bi sawar mooy tax ngay sawar ci qiyaamul layl sawar ci ay koor sawar ci dox mbokk sawar ci lu baax amma yaram bi bu dee dañ ko rey ba mu tayeel yooyu yëpp da ngay gis loo ca man dara moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndaw yi saxaaba da leen daan ñaax ci sport ñaax leen ci ñu def ay ah, dawal fas ñaax leen ci la nga xame ni nii ah, mooy sànni fit ba Umar ibnul Xattaab daan wax seen doom yi da leen jàngal ñu mën a féey mën a sànni ila axiri kon loolu mooy la nga xam ne moom la ñu wax ñu ne ko nag bàyyi xam nañu ne lu ñu dëggu dëggu dëgg moom mënuñoo gëm ndax la nga ñu avertiroon ci lu jëkk waaye bàyyi xoolal gis nga mbubb maa ngi nii jël mbubb yuusufa alayhi salaam fekk avant ñuy ñëw ren di nañ benn bëy jël deret ji sotti ci mbubb bi daal di koy won yanquba alayhi salaam sa mbubb doom baa ngi nii yow bàyyi tiligale ko na ko

lu tax mooy matukaay boo mën a jël du ñàkk foo juume rawatine bu dee ak tooñ da ca am suñu borom de seetaan tooñ Yaquba yëkkati na yére bi ne leen ah yéen de seen till gi expert till la naka lay mën a jële sama doom lekk ko ba mu jeex te mbubb mi fenn xottee ko ci fekk ñoom dañoo fàtte xotti mbubb ma wane ne crime du parfum bokk jurit lii kon mu ne lan mooy am Sen bakkan taaral na ci yéen benn mbir ba ngeen teqale ma ak sama doom waaye nag fa sabarun jamil danaa muñ muñ gu rafet danaa muñ muñ gu rafet di dimbali koo yàlla ci li ngeen di def mbokk jurit lan moo tax ñu tànn suratu Yuusuf ci jamono coronavirus bi ngir fàttali leen ko bokk na ci yu demee nii yow mi ñu confiné sa appartement yow mi nga xam ne sa liggéey yàqu na ci yow mi nga xam ne sa mbokk yàqu na ci ngalla waay ñi ngi lay sant sabarun jamil lan mooy sabarun jamil mooy fexeel ba sa kéemtaleel kattan sa borom bu mu dégg ceew lu lu rafet noonu lañ ko jaaye ci njëg goo xam ni néew la darahima macdudaat ay dërëm rek yu ñu mën a lim wa kaanu fihi min alzahidin ndax ñoom nekkoon nañ di doy ci yusufa mi ngi noonu ca mooy dëddu ci moom ci xemme mu tuñ dara ci moom wa qaala allazi ishtaraahu min misra noonu la waxee ka ka jënd ca biir misra muy biir égypte limraatihi ñeel soxnaam sa akrimi maswaahu terelal wàccuwaayu xale bi asa an yanfaana kii day mën na am mu jëriñu aw nattaxidahu walada wala ñu jàpp ko def ko doom wa kazalika makkan naa li yusufa fi l ard naka nii la ñu dalale yusufa ci kaw suuf ولنعلمه من تأويل الأحاديث غيرين جانغل كو تنمي فيري أي وخ روتين جنت والله غالب على أمري يال نك موي أجي نطلة تنبيرم ولكن أكثر الناس لا يعلمون واي لي نيوم نيكو ندي خم ولما بلغ أشد بمدمى دمي بجوت نكتنم آتيناه حكما وإلما تنون لنك ديكي جوكو لدي أتي جوكو خم خم وكذلك نجزي المحسنين تناك ني ريك لني فاي لني فاي نيغا خامني دا ني رافيتال ميغي نونو مبوكو جوغي نين كر يعقوب عليه السلام يوسف ماغا تيا تنبا سو ديلو وون تي نيانغليم بني اسرائيل نينن ديفنا فا نيتي فان avant suñu borom di yebal ben caravane ñu ñew ñoom ñu daan tukki xam nañ fépp fu ndox nekk ci yoon bi ñu yónni seen benn rootkat ne ko place tel am na teen demal nga root foofee bi mu ñëwee rekk sànni baag bi yuusufa daal di jàpp ci baag bi mu xëcc génne ko muy benn ndaw mu daal di dellu ci ñi ko yónni woon ne leen mbégtee ngi nii for naa fi benn xale <clears throat> biñ ko jëlee au lieu ñu dem ci dëkk ba laajte waaye dañ koo nëbb def ko marchandise daal di yóbbu doonte ne suñu borom yàlla mu ne maa gën a xam la def loolu it mbokk ñu gis ne sunu maam yi yàlla nattoo woon na leen lu bari ci suñu mbokk naar yi ñuy dëkkal léegi la ñu daan dem ca pénc ma rek fekk mag ñi dem nañ tool ñu ramas ndaw ña fa nekk dugal seeni mbuus yóbbu loolee suñu borom mu ne xam naa lañuy ñuy jëf yàlla ngi ñuy jàngal fii it lum mën a doon ci àdduna mën nga koo nëbb keneen gis nga suñu borom mën a asarruhu dañ koo nëbb man ngaa nëbbu sa soxna nëbbu say dëkkandoo waaye xamal ne mënoo nëbb ba nëbb sa borom wallahu alimun bi maa yaamaluun yóbbu nañu yusufa ca marché ba prix buñ ci wax kenn nanguwu koo jënd ñu jaay koo jaay kenn nanguwu koo jënd boroom xam-xam yi wax niñ ci ay wax am na luñ ca mën a jàpp mooy yuusufa taaru woon na taar bu jiggi dayoo ñu bari nag ni kii ku ko jënd bu màggee sa kër dana indi fitna ci say soxna indi fitna ci say doom bu jigéen ca loolu it mujj naa am kon dañoo mujj wanteer yuusufa dañ ko mujj wanteer dem ba amatu ci moom benn yaakaar wa kaanu fihi min az-zahirin ñu jaayee ko ay dërëm ñu ndaw loolit mbokk mu lay jàngal nattu yow mi nekk ci ay nattu yuusufa alayhi salaam mooy ki gën a tedd ci wàllu famille ci ñi masa ñëw ci kaw suuf wax naa la ko ci darsi bi passé yonent la baayam maamam ki jur maamam ñëpp ay yonent lañu ñu koy jaay ca marché ba ni ñuy jaayi am xar di ko waxaale di ko waxaale ba mujj ko wanteer xoolal mbokk natt boobee waaye suñu borom jaarale na ko fa mu mujj ñëw jënd ko ki nga xam ne mooy premier ministre bu Égypte moo ko jënd yóbbu ko këram bi mu ñëwee mën a soxnaam kii dey dama bëgg nga teral wàccuwaayam mën na am mu walla ñu jàpp ko def ko doom ñu bari ñu ne waa ji amul woon moog soxna si doom waaye lim ne ko teralal wàccuwaayam ku ne ci ñun war cee bàyyi xel mbokk kër jigéen moo koy yaatal looloo tax su yàlla mayee jëkk soxna su baax dana la yaatal yaatal la sa njaboot waaye ngal la waay tey biñ demee ba lu bëri ci intellectuel yi gis nañu ne dañuy takk ay seen moroomi intellectuel nga xam ne ñu ëpp ci ñoom ay bopp sa bopp moo gën a feeñ ci ñoom da ngay gis ne kër yi boo fa demee doo fa gis kenn benn benn yi nga fay gis xamal ne mbokki soxna la si lañu waaye yow mi nga xam ne yaay boroom kër da ngay gis ne loolu duñ toléré sa njaboot na am teralal wàccuwaayam loolu it moo tax keroog ba soxna si bëggee yuusufa génn kër ga yuusufa waxuma génn na kër ga waaye prison sax la fanaan yi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ne nii lañ dalale yuusufa ci kaw suuf ma nga jóge ca àll ba yàlla indi ko Égypte ci capitale bi dalal ko ca kër premier ministre bi nga xam ne moo yoroon doxaliinu réew mi suñu borom yàlla def ko ñu jàpp ko fa kam doom mu ne nag nii laa dalale yuusufa ci kaw suuf yàlla mooy not ci kattanam waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu ngalla waaye mbokk xam leen ni coronavirus bi ñuy dund kattanu yàlla la mi not ci kattanam mu tasaare ko tey grande puissance yi waxumaa nag ñun dëkk yi néew doole yi le premier puissance mondiale di Amérique tey jamono jii ñuy wax ak yéen ñoo ëpp ña fay dee kon wallahu ghalibun ala amri yàlla mooy not ci mbiram waaye nag noonu mu amee kattan indi musiba bi wallahu ghalibun ala amri noonu la amee kattan wëlbati ko waat wëlbati ko def ko xéewal ñeel ca ña ko neex donte ni li ëpp ci nit ñi xamuñu borom bi nag nee na ba mu demee ba am kattanam ca laa ko may atti may ko xam-xam ni ma ko ko defee laa koy defal képp koy rafetal ca mbokk mi ngi noonu yow ndawal julit soo bëggee ëllëg soo màggee yàlla may la xam-xam booy ràññee lu baax ak lu yàlla may la xam boo koy jaamoo na nga jël sag ndaw jox ko sa borom soo màggee yàlla féetewul la sag mag yàlla na yàlla yombal ko ci ñun ak njaboot gi mi ngi noonu Cheikh Ousmane وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من barakallahu fiikum suñu boroom mu ni wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi noonu la ko sàkkoo ka nga xam ne yuusufa ma nga ca këram di soxna premier ministre bi mu sàkk yuusufa ci boppam wa xalaqati l abwaab mu daal di tëj bunt yépp wa qaalat haytalak mu ne ko waaj naa ñel yow yuusuf qaala maaza allah mu ne ko maa ngi làqu ci yàlla innahu rabbi sa borom kër mooy sama bo mooy sama sang ahsana maswaaya rafetal na sama wàccuwaay innahu laa yuflihu zalimun li am day du texe mukk la nga xam ne mooy toñkat wa laqad hammat bihi soxna sa xemme moon na xër jëm ci yuusufa wa hamma biha yuusufa wiit xemme moon na jëm ci soxna sa lawla an raa burhaan rabbi bu dul woon ak daa gis la nga xam ne mooy lay wu màgg wa bawoo ca boroomam kazalika li nasrifa anhu suua walfahsha naka noonu rek ngiree ñu mën a fekk ci moom féewale ko ak lépp lu ñaaw ak fahsha mooy lépp loo xam ne ñaawteef la rawatina bu jëm ci njaaloo suu wal fahsha lu bon ak lu ñaaw innahu min ibadina almuxlasin mom bokkon na ci sunu jam yi nga xamne dañ leena tan tànn wastabaxal non lañu jëkënte buntu ba wa qaddat qamiisahu min dubur soxna sa xotti mbubam ma xottee ko ca gannaaw wa alfa ya sayyidaha ladal bab non noonu lañ dajeeg sangu ndaw sa sa ca buntu kër ca buntu ba qalat ma jazaau man arada bi ahlika suu mu lan moy payu ki bëgg ci sa soxna lu bon illa an yusjan xanaa lu dul ñu tëj ko aw azabun alim wala ñu mbugal ko mbugal mu tar mbokk yuusufa màgg suñu borom yàlla may na ko xam-xam may ko atte soxna sim nekkal jaar na ko gauche jaar na ko droite façon bu nekk ngiree yuusufa xemmem jëm ci moom bam demee ba tële ci suñ borom nee na mu tëj bunt yëpp xam naa buntu appartement ba tëj na tëj na buntu salle ba tëj na buntu chambre à coucher ba léegi nag woo Yuusufa ba ci biir mu tëj bunt yëpp futteeku def mu neen ne ko hëytalak pare naa ñel yow Yuusuf Yuusufa ne ko ah maa ngi làqu ci yàlla ci loolu maazallah maa ngi làqu ci yàlla ci loolu yow sa borom kër mooy sama boroom ca loolu dagganoon na ca sharia yu jëkk ya ki nga xam ne moo moom nga naan ko rabbi ki nga xam ne yaa ko moom nga naan ko abdi bi lislaam ñëwee la tere loolu même bi jaam yi di nekk jaam day wax sangam saydi sa kii walla mawlaaya kii it di ko wax la nga xam ne nii mooy fataaya wala kasaw yi deme noonu waaye abdu dootu ko wax ndax loolu yàlla dañ ko ko sellal sa sa borom kër rafetal na sama wàccuwaay yaatal ma ci këram ba pare may wëlbatiku di njaaloog soxnaam a ah, déedéet loolu koy du ko def tooñkat mbokk du texe mukk loolu it mbokk ñu bàyyi ci xel mooy tooñ ay nit daañ bokk def benn tooñ kii yàlla teg ko lu gën a garaaw ci mbugal lam tekkee ci jëf ji benn la masalan rasul sallallahu alayhi wa nee na nga dem njaalu ca àll ba fukki njaaloo fukki yoon nga njaaloo ca àll ba moo gën nga njaaloog sa soxna dëkkandoo ndax dëkkandoo dañoo war a sàmmante wóolante loolu mi ngi noonu loolu it la ñuy wax ci wàllu gépp tooñkat it xamal ne du texe ay yow mi tooñ mën nga rëcc tey waaye doo rëcc mukk bala ngaa dee da nga gis payu tooñ suñu borom mu ne soxna si xemme moon na jëm ci yuusufa lool yuusufa xemmem jëm ci moom donte ne ni loolu la ca boroom xam-xam yi di wax mooy loolu day nekk hëmmu xataraat yuusufa mi ngi xemmemoon xemmemu lu traversé sa xol rek daa di génn ndax jeune boo xam ni yow da ngaa tumuranke yoroo soxna jeune nga tumuranke nga ne yoroo benn soxna wax dëgg ah kii di premier ministre soxnaam si taaru fokk yow danga nga am yëg-yëg amma bu dee soxna see moom ay biram ñépp xam nañ ko xamem na jëm ci Yuusuf borom bi nag ne lu dul ne yàllaa ko woon kawtéef boo tax ba Yuusufa mën a dellu gannaaw kawtéef boobee lañ ca wax bari na dañuy doy suñu borom wax mi ngi noonu donte ne am na mufassiruna yoo xam ne sax dañ naan wa hëmma biha lawla an raa burhaana rabbi doon na xemmem jëm ci moom bu gisul woon kawteef waaye laa shakk ne xemmem na jëm ci moom yàlla indi kawteef borom bi nag ne nii laa ko fegele mu def lu bon def ñaawteef ndax daa bokk ci jaam yi ñu tànn loolu it moo tax ba mbokk yal nañu yàlla boole ci jaamam yi ñu tànn yàlla bu la tànnee da lay féetewoo di dox sa diggante ak lépp loo xam ne nii lu bon la ñun ñoo ko tànn moo tax loolu ñu fegal ko ko yuusufa samp aw xelam daal di daw soxna si daw daal di koy topp bi mu dawee daal di koy topp jàppe ko ca gannaaw xotti mbum mi yuusufa xëccu dem mu daal di yàlla miy dogal nag bi yuusufa ne kat ci bunt bi rek ñu jàkkaarloog la nga xam ne mooy boroom kër soxna si soxna saa ngi def yére neen yuusufa mi ngi def yaramu neen xamisa ba xotteeku na wàcc soxna si daal di tàccu daa na ko nag lii de yaa ci yem ki nga xam ne day bëgg sàkku sa soxna ngir lu bon ana ban pay nga ko woon a pay kii daal fokk ñu tëj ko ca kaso ba wala ñu teg ko mbugal boo xam ne mbugal mu tar la lii it mbokk bala ñoo jàll ñu dégg ci ne nañu moytu wéetaay góor ak jigéen suñu kéemtalal kattan du doon ca bureau ba ca secrétaire ya du doon ca mbindaan ya nekk ca appartement ya du doon ca boy ya wala gardien ya amul lenn lu gën a nekk nattoo mooy góor ak jigéen di mën a def ay heure ci wiitaay foo xamee ñi ni kenn gisu leen fa loolee lam mën a jur ci fitna kenn xamul nu ma toll bokk na misaal biñ ci yàlla jox personnalité bu torni soxna premier ministre Yuusufa alayhi salaatu wassalaam waaye gis na fitna ni mu doxee seen diggante yal na yàlla sàmm ñu sàmmal suñu njaboot mi ngi noonu Cheikh Ousmane قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قيس قد من قبلها فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دون فكذبت وهو من الصادقين فلما تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين جزاكم الله خيرا شكرا لولو بيغا خميني ني كون امنا kon am na suñu borom قال هي راودتني عن نفسي ديديت موم كاي موما ساكو سي سما بكان وشهد شاهد من اهلها من اهلها نون لا سيدي اجي سيدي جو بوكو سي نجابوتو سخنا سا ان كان قميصه قد من قبل سولين خميس بي دافا قوتي كو تي كانام فصدقت كون سخنا سي وخنا دغ وهو من الكاذبين من الكاذبين يوسف ميكي فين كدي لا بوكو كون waaye wa in kaana xamiisuhu qudda min dubur bu dee ne xamiisa bi dafa xotteekoo ca gannaaw fa kazabat kon soxna si fenn wa huwa min alsaadiqin ca kon yuusufa mi bokk na ci ñu dëggu fa lamma raa xamiisahu qudda min dubur bi borom kër gi xoolee xamiis bi xotteekoo ca gannaaw qaala innahu min kaydikunna lii day ci seeni pexe la bokk yéen jigéen inna kaydakunna azim seeni pexe day lu màgg la waaye yusuf arid an haza yusuf dumu wax ji ay bu ca waxati bu ko ci yow soxna si it wastaxfiri li zanbik jéggulul la nga xam ne mooy sa bakkaar innaki kunti min al xaatiin yow de bokkoon nga ci ñi nga xam ne nii dañoo doon ñu juum ñu mi ngi noonu wa qaala niswatun fi madina noonu la waxee soxna ya nekk ca biir capitalu misra imraatul aziz turawidu fataha an nafsi kii di soxni premier ministre ma ngay sàkku ka nga xam ne ab jamam ci pur pour njaaloog moom qad shaghafaha hubba dem na ba sax muur ko xol muur na xolam ba ci gam am ci inna la naraha fi dalalim mubin ki day dëgg-dëgg gis nañ ko ci réer gu biir gu leer nañ ca la mi mbokk ñi ngi ci kër premier ministre premier ministre bi yëg si na fekk benn scène bu doy waar soxnaam mi ngi def yaramu neen ab do euh, jaamam mi ngi def yaramu neen accusation am jóge ci soxna si waaye bi loolu amee Yuusufa daal di ne ko déedéet ay sama sang moom mii moo ma doon sakku pour njaaloo ak man ca loolu it nga la waay bul wax rek li ñuy wax la yàlla xam doy na déedéet jullit daa war di teggi tuuma ci boppam rasul sallallahu alayhi wa sallam nekk na ca jàkka ja di def itikaaf soxnaam safiya ñëw seetsi ko ci guddi mu jóg di ko gunge moo am ndawi ansaar yu nekkoon ci kuur bi seen ko rek jóg daw xàmmee nañ yonent bi alayhi salaam yonent bi ñu leen eh kaay leen taxaw leen ñu taxaw mu ne leen kii safiya la sama soxna ñu ne ko ah yow yàlla yónni mu ne déedéet inna cheytaani yajri fi ibni ma majra dam cheytaani dafay daw ci doomu aadama ni deretam di dawi ca loolu it kon moo tax ba teggi tuuma dafa baax moom moom ma doon sàkku sama bakkat noonu la seede aji seede ji bokk ca famille soxna sa soo demoon ci lu bari ci mu mufassiruna yi dañ ne benn xale bu nekkoon ca birs ba moo wax waaye ñun dañuy yem rek fi ñuy yàlla yem loo ci alquran am na daal premier ministre bi koo xam ne conseiller na ko ci biir kër gi koo xam ni moo soxna si ay mbokk lañu moo tax mu ni min ahliha mi ngi noonu di na ko premier ministre léegi xoolal xamisa bi bu dee ci kanam la xottee ko nga xam ni yuusufa moo doon jëm ci soxna si soxna si di ko repousser di ko euh, jeñ ba mbub mi xottee ko ci kanam waaye bu dee ci gannaaw nga xam ne kon yuusufa moo doon daw soxna si di ko jéem a jàpp ba mu xottee ko ci gannaaw premier ministre bi yëkkati xamis bi xool ko gis mu xottee ko ca gannaaw mu daal di wëlbati ko ci soxna si daa ne ko ah lii day ah, nekk na ci seeni pexe yéen jigéen seeni pexe réy la ca loolu it mbokk di mbir bu bàyyi jota jota bàyyi xel li ma leen doon wax sànq te ji bari na ay nit ñoo xam ne daan jël ay góor luye seen biir kër daan jël ay góor bàyyi seen biir kër yàggul dara wallahi mbokk fii ci Dakar lañ may nettali benn gardien boo xam ne ñaari doomi patron yépp la bokk ëmbal yooyu fitna la bu mën a jóge ca ñay ñëw waaye nag am na beneen fitna encore mooy sa soxna bi nekk ci kër gi ndax yow am nga kóolute bu tol ni góor gën koy indil moom dana ci mën a téye boppam mbokk Yuusufa ko baax la ko baax la comme yow mii wut chauffeur naan damay wut chauffeur bu baax gardien bu baax nangam bu baax mais ndax am nga kóolute bu tol ne ci la nga xam ne mooy xew sa diggante ak sa njaboot bu dee mag ñi yàgg déglu daan dégg benn musicien ivoirien boo xam ni da daan musique di wax wax yoo xam ne suñu borom mu ne na maa laa yafaluun mën nañoo wax lu baax doonte ne la ñuy def dara baaxu ca mu naan la femme de mon patron def ma woo ci njaaloo patron mu ne ko mukk loolu du ko def sama patron duma ko trahir mu ne ko boo àndul ak man ci njaaloo danaa wax sa patron yaa ma doon sàkku mu dàq la mu ne nag quel malheur si je dis oui si je su ma waxee waaw trahir sama patron su ma waxee déet dañ ma dàq sama liggéey mu koy woy waaye loolu lépp mbokk la tax ñu koy wax rek mooy jigéen moytul yow mi yàlla nattoo sa borom kër yàlla may na ko am na chauffeur may na ko am na gardien may na ko am na booy waxuñu ne dafa xaraam waaye xoolal foo yem ak moom xoolal foo yem ak moom ndax xamoo seytaane fu muy ñëwee ñetteel leen loolee ñu bàyyi ci xel bu baax donte ni ne yàlla bind na jigéen ñu am personnalité bind na góor ñu am personnalité ñoo xame ne nii lu yàgg-yàggit seen xel du traverse lu bon waaye nag comme wóorul nañuy bàyyi xel ci loolu bu baax a baax seeni pexe lu rëy la loolit it jullit bu nekk war di ñaan yàlla musal ko ci pexe jigéen ñun ñépp jigéen ñu jur su bëggee def lu baax ay pexem lu rëy la waaye su bëggee ak kàccoor te ak pexeem lu rëy la yow yuusufa maa ngi lay ñaan wax ji na yem fii arid an haza yow soxna si tuubal bakkaar bi nga def bokkoon nga ci ñi nga xam ne dañoo tooñ loolu mbokk benn waay mi ngi ñuy jàngal leçon mooy moom sa bopp ci jamono ji nga mere loolu ku ñu dafa war a ñaan yàlla subhanahu wa taala moo koy jagleel ku ko neex mooy boo mere nga moom sa bopp يننتبه عليه الصلاة والسلام نينا كينا خاني مي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب جسنا دال جيم اندال اي سخنا سي دنگا جوم توبل اي يوسف فاتيل اسوار بي واي مبوك جوليت لنيي تود راديو كان كان ياغنا سي كاو سوف دي لنيي تود ريمور ياغنا سي كاو سوف اسوار بول بوغا خاني سي كيرغا امي يالا دوغال نا am na ku ko fa jëlee jo nettali faatu faatu nettali Mariam Mariam nettali ñu koy jokkalante jokkalante ba mbir mi wër la nga xam ne nii mooy capital Égypte ba comme na mu amee woon ca jamonoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ tuumeelee sunu demoon na ba jege ni Madina yépp di waxtaane mbir boobe ba suñu borom yàlla wacc ca ay ayat ci suuratu nuur nga xam ne yeeyul ci benn nit ci jullit mu koy réere na la nga xamee ne nii yaay Aïcha doon na ko wax jigéen ñépp nañ leen jàngal la nga xam ne muy suuratu nuur jàngal leen ñu mën a nekk di ràbb wala di ñaw ngiree ñu toog kon loolu mooy di am jigéen ñaa ngi koy waxtaane ey eh waaye dégg naa ne premier ministre ba day jaam ba nekk ca këram moom la moom la bëgg ba mu muur xolam baat boobu yit yéen ndaw ñu yóbbaale leen ko xad shaghafaha hubba ngalawaay mbokk xam leen ni lii di mbëggeel dana toll foo xamee ni nii dootoo gis dootoo dégg moytu leen di bëgganteeg ay xale yu jigéen bëggante goo xam ni jëkkul nga waxtaan ca ak say wayjur moytu leen di bëgganteeg xale yu góor bëggante boo xam ne jëkkul nga waxtaan ca sa ak ay waajur loolu li muy jur da nga dem bëgg a takk benn xale say waajur ne la ah déet doom kii bu ko takk ndax mbokk mag day day tëdd di gis lu sori xale moom yéeg ca kaw di gis dara noonu la ko sunu maam yi daan waxe mag day xool tey xool ëllëg xool intérêt xool famille yow ndaw nag yow li li itteel mooy faccaam rek taaram itteel ne la jeex na su ko defee nag bu doon fekk ne ne bëgg nga fàccaam bëggeel goo xam ne moo la gënal say bët bu la yaay ne bàyyi ko danga naan ko déet yàlla yaay yow lay bàyyi waaye mënuma bàyyi fàccaam bu la bàyyi ne bàyyi ko danga naan bàyyi yow lay bàyyi waaye mënuma bàyyi fàccaam naka noonu it xale bu jigéen bi ba mu demee ba bëggante ak ka nga xam ne nii mooy jo caam it même chose su bàyyi bi taxawee na ko bàyyi ko danaan déedéet yaay bàyyi ko danaan déedéet mi ngi noonu wallahi sama bët wan na ma ci koo xam ne ba nekk ci épisode ci njàngale mu rëy mu ñu suñu borom yàlla subhanahu wa taala di jàngal bokk na itamit uh, ci luy sawarloo doomu aadama bi mu topp ko tey ji ñuy defar film yépp xam nañ ko dañuy bàyyi ba fa mu gën neexee ñu dagg ko foofee kon yooyu mi nga xam ne yaa ñuy topp histoire am na ci kër premier ministre génn na jigéeni Égypte ña ngi koy waxtaane fan la mbir ma di mujjwaat ndax soxna si dana ko mës a dégg ndax mbir mi dana mës a dellu siwaat ci yuusufa incha allah bu ñu fi dajawaatee àllarba bii di ñëw daan ci ah, yeggale lañ ca mën a yeggale ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala balaa boobu yal na yàlla defal ñu afwa defal ñu aafiya mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay xat-xat xat-xat yee nu mu mën a nekk yàlla leen ko gën a xam yàlla na yàlla teggil ko euh, ci ngëneelam ña nga xam ne nii ñoo ngi nekk ci jafe-jafe lañ doon am wàññeeku na lañ desee kës néew yàlla na yàlla barkeel ko ubbil leen ay bunt yoo xam ne fooguñu ko fa woon yàlla na yàlla teggil ñu coronavirus bi ci kaw suuf def ko yiwu julit ñi àdduna ak àllaaxira mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Qur'aana gi kemtaan ya barina jàng ko mangi yiw asurun ca halfu ya Qur'aana gi kemtaan ya barina جنگ کو منگی عشرون چه حرف یا یا ننه نلا بس بموجبا کانی وقت تیرے بھی seen ya kaawe la